efficace formel ak sawar bari technique ku ko am tey ci seen bagaan la ko siitaat qualité quantité karaak yi ko ëmb lu nu jëf diina am ca wàlla wàllaat nanu buur dolli kàttan ak mucc wér men lu nu def ren déwén ñu jëf lu ko fukkaat nanu buur dolli kàttan ak mucc wér man lu nu def ren déwén ñu jëf lu ko fukkaat jërëjëf Baye Serigne yow ak ñi nga àndal ku ko wax yàlla na dégg maama ki maamaat jërëjëf Baye Serigne yow ak ñi nga àndal ku ko wax yàlla na dégg maama ki maamaat góoru Mariama jaane daa ma fi jaaroon gént naa wayu fallu may ma ci kaat kaat gént naa wayu fallu may ma ci kaat kaat xanaa fallu am nga mbubb tey macha allah kii moom yow jat privé sax lañ la war a wutal yow moom kii jat privé lañ ko war a wutal ah